برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان بوجه لم يذهب به والله إننا كرم وخمن يبوكون كيني محمد جبانو أبو إيمان بالله waaye yàlla ma ko ko tere mu ne ko yow lu xew suraqat ibnu maliki ne ko aba hakamin wallahi law kunta shahidan bi amri jawadi iz tasixu qawaimu alimta wa lam tashkur bi anna muhammadan rasulun bi burhani fa man za yuqarimu soo seenoon sama tànk yow abu jaari sama tànk fas waa ngi suuf ci biir suuf ngir ñaanu muhammad alimta ne nga xam wa lam tashkur doo am sikki sàkk bi anna muhammadan yonent bi rasulun bi burhaanin faman zaa yuqaawilu yàllaa ko yónni ci tegtal yu leer nañ ko dugg ci lislaam yonent yàlla Muhammad mënoon comme na mu ne woon Kaaruun waaye bokkul yonent ci yëpp te firiwul tamit Moussa amul yërmande waaye yàlla Muhammad la yàlla def yëpp ci mbooleem jikko yi ah, dem na Taif pour woorente yàlla mu fekk fa Abdayaari ak Mas'ud ak Habib. ñooy boole ko dof yi ak xaj yi ñu koy sànni xeer di ko dàq mu daj foofa ca Taif loo xam ne mburu du ko daj ci taam laqaa min as-sufaha ma la afuwu bihi wa saaqa adma wa saalante mu lil qadami seen xajmaat yi moo ko nettali doon mu ñëw yonent bi saa Jibril wàcc na ne ko loo bëgg damaa ñëwoon pour nga may ma digal ma daal di jël sa bay ni ñaari doj yi ci Taif ma dëppale leen ñu jeex benn yoon yonent bi def allahumma ighfir li qawmi fa innahum laa ya'lamuun jéggal sama gars yi dañoo xamul suñ xamoon ne man la kon xëy na duñ yegg fii wala yàlla yi dañuy doon yonent yi ndax yonent ne maa uuziitu maa uuziya nabiyyun misla maa uuziitu amul benn yonent buñ mbugal ci àdduna sonal ko comme niñ ma mbugalee affaire bi day waar ndax Nuux nekk na fi junni at yu manqué def nañ ko lu ne dañ ko daal dóor ba mu xam ñu yaakaar dee nañu sànni ji ko si àll su xent bi wàccee mu daal di filmé ñëw di ah da'awtu qawmi laylan wa naharan falam moo tax képp ku doon yonent il faut parce que Baay Ñas radiyallaahu am na ñu ko xeex muy wax yarjuuna xizlaana abdin ñoo ngi bëgg maanaam bismillah laa malaaza lahu siwal aliyyi ajiibuhum ulaa'i bàyyi ne ne gaa yi naa bëgg a faagaagal toroxal ma mooy jaam ji nga xam ne amul wéerukaay guddul yàlla bàyyi ne ajibul yéemu naa bu mu ko ab huppulaa yi mooy ndofeelu gaa yi nga xam ne ne maa bëgg a faagaagal xamu ci ma wéeru booba ñoom yëguñu ndekete même góoru yàlla yu màgg yi warlu nañ bàyyi gis nañ ne bàyyi amul benn doomu aadama koo xam ne mën na ko def lu ko yàqal ci kaw suuf ama su koy rek bind na bàyyi ñes lettre di ko ci wax wa ma jaa ahadun min ahli lfadli bi misli ma qumta bihi illa uujiya muhammadiyatan فاصبر لها غير محتال ولا بدل من بانيس كم مسل عندي لي من عندي تي براس محمد يا مانا تي خم خم تي ندونو تي جام يالا تي جيكو تي معرفه بالله لو دو دنا ام ني تاخاو كانام ام ني دو في امي من كو براس محمد يا اما سكر ني بلول نون محمد يا فاصبر لها غير محتال ولا بدل نغا موي لولو بول فخه بول مر وي بوبو ما تاراي مكو وي تلام يبي فاصبر لها غير محتال ولا ضجر في حادث الدهر ما يغني عن الحيل من المنكو تبير خير خير قدنا دين تي كيس لو خمنا دينا رام قلاس ساين بخير ولا ساين لا نتلا دفعنا بسم الله باية وقدنا دمنا درجة من نتي دون كم كم هو بدون ردول دينا كبوغر كلا دف دارا فاصبر لها غير محتال ولا ضجر مجدول فخير بول مر ndax ci biir xew-xewu aduna am na ci loo xam ne dana la doy walis pexe nga nar a fexe wala mer nga mer ahmad sukayre wax na baay fala yahummannakumul wushab ci lettre boo xam ne moo ko bind ci novembre 1937 jëmale ko ci baay di wax ci zawi bi mooy ci jumaa ji bokk na ca lam ca wax mu ne la shakka ayyuhal waliyul hakim déglu kii wax mooy ahmad sukayre sikki amul yow wali yi bu xereñ ji tuddee na fi bàyyi ay tur yoo xam ne tur yooyu bàkk yooyu su jógee ku mel ni ci su ku mel ni su koy rek ñëw ci ku mel ni bàyyi loolu tuutiwul daara yi ndax toujours ma wax leen kàddu dana màggee ci ki wax kàddu bi mu ne ko sikki amul ayyuhal waliyul hakim yow wali yi bu xereñ ji أن هذه الزاوية لها شأن وأي شأن يشد إليها الرحيل من أقاصي البلدان للتبرك بمشاهدتها تكون محق الظائرين وكأن من حل فيها حل في مقام الشيخ فهي أمان فهي مأوى مأوى فهي مأوى السالحين برغم أنف وشات المعالجين زاوية بلا وقد حسنتها بالمعلمتين من كل جانب مدار شتاك نبعتي وخم يوم لا بد عندي من فلا يهم أنكم الوشاة والحسان ومثلكم لا تسلم إليه يد السوء حسب دراستي من مشرق والله يعصمك من الناس من يو باي بول يتيلو بيرو آه، نوني اك ينتتي كومل ليو لوغو نياوتي فبريك تي موم غير ندونا غا خامي مام لا دارو سي يتي الله ما ساسل والله يعصمك من الناس يا دال لو تي سي دين يمر فوف سكيرت نين قيل لي من الحضره انه لن تمسك يد سوء ابدا فدم أيها الصادق الأمين على التمسك بالحبل الذي لا انفصام له فأنت في كاف الأمان من باي نانا ما من سكر جلي كتي بري بي الله بسلك لخو كوي كل بغا فاغا قال منو يغي تيو ابدا فدم نغا كونتيني يو باي ايها الصادق الأمين ديغال باكي يو كيغا خامن صادق نكو ديكوما الأمين كوي وولو الصادق الأمين تسيبكو مقامرا تتمت أمانة مقامرا ala tamassuki continuer ci tiye bil habli lazi la fisama lahu buum bi nga xam ne du musa dagg mooy buum bi nga yor fa anta fi kahfil amaan yaa ngi ci xumtu kóoluftale maanaam kenn mënu la yàqal continuer la nga nekk bàyyi des moo tax bàyyi ne naam awqadu naaran li harbi wa mihnati fa atfaaha al mawla biduni kalami naam awqadu gaa yi taaloon nañ naaran safara li xar bi ngir xeexal man man bàyyi wa mihnati am nattuma waaye fa at fa ahal mawlaa bi duni kalaam yàlla fay seen safara boobu ci lu dul wax sax mu ne moo tax toujours bàyyi moom nitu jàmm la day wax ab taalibe di wax laa tadribu abadan laa tashtimu abadan wa in duribtum fa sabran innakum subur laa tadribu bu leen dóor suñu leen dóoree sax bu leen fay bu leen dóor laa tashtimu bu leen saaga wa in duribtum suñu leen dóoree fa sabran muñ leen innakum subur loolu yëpp bàyyi moo ko doon te dégg taay bi bàyyi des nee na dara xewul lu dul man dama indi waxu yàlla waxu yonent bi beesalaat diine ji beesalaat tariqa allah qultu inni qad tahazzabani man man yàlla rek wax ma dara dul yàlla allah qultu wa inni qad tahazzabani man qad arafta mbooloo yëpp jóg ne du fi amee fa farrik shamlahu musula yow yàlla na nga teqali seen boor ndax lii ma indi dara taxaw kanamam lu dul seey loolu seey ndax ci ci ci ndigalu yàlla lay doxee moo tax yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moom isaay googu mu am yàlla may ko muñ googu mu ko may moom moom yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam moo tax moom la yàlla dencoon ba mujjanteelu jamono nga xam ne day ñëw indi yërmande indi njàmbaar indi tabe indi aqida inna al aqidata niddun lil xayaati fa in baaxat fa kullu xayaatin baadahu adab maanaam innal aqidata woykat bi nee na aqida niddul lil xayaati maanaam euh, aqida euh, morom la ci dund dund euh, diine manu see ñàkk genn wàll la ci dund genn wàll la ci nit soo gisee millata ibrahima xanifan soo jàngi alxuraan yi yàlla ne millata ibrahima diine yeen ci yàlla ibrahima xanifan ñëw xanifan bi di xaal ñeen ibrahima bi ci ibrahima te ci naxu dañuy wax mudaafum ilayhi warul am xaal waaye nag millatu ak ibrahima dañoo nekk benn mbir parce que millat millatu jus u la ñeex ci ibrahima gi moo tax xanifan bi ñëw nekk xaal ñeel ibrahima bi nga xam ne mudaafu ilay la mooy wala tujis min xaalan min al mudaafi la illa ida ka illa ida kadal mudaafu amala bu alfatul maliki ولا تجز من المد... ولا تجز حالا من المضاف له الا اذا اذا اقتدى المضاف املا او كان جزء ما له اضيف او مثله فلا تضيفه wala boog mudaaf ak mudaaf ilayhi bi nekk benn mbir wala boog mudaaf bi nekk juz ci mudaaf ilayhi bi kon bu boobaa mudaaf ilayhi bi dana mën a am parce que diine ak nit ñoom ñoo ànd moo tax euh, inna al aqidata mooy pas-pas nit dul lil xayaati morom la ci dund dund ak pas-pas ñooy ànd fa in daat su pas-pas sànkoo fa kullu xayaatin baadaha adalu bépp dund ginnaaw pas-pas boobu Euh, ñàkk la nit su dundee te amul pas-pas dafa mel ni loolu ñàkk la moo tax nag yàlla day may tawfiq lépp lu waay am te amul tawfiq dara nit jàng na ba jeexal xam-xam yi yàlla tere ko aqida te aqida amul dara ci kaw suuf lu am solo ba yegg gis naa ku mel ni abul ala ibn arri dëkkoon sama aratu normal ci Syrie yàlla may na ko xam-xam ci jamonoom nee na sa amul kenn koo xam ne dara yemoo moom ci wàllu luuxa ci wàllu luuxa ci jamono ba sax yegg na ci benn waay newoon na ko kalbu woowee na ko kalbu mu daal di wax waa ji kalbu man lam yaarif lil kalbi miyata ismin fi lugati wala salaasa miyata ismin kalbu xaj mooy ku xamalul xaj téeméeri tur ci arab maanaam delloo na saaga bi de saagawul waaj abul alaayi ma arri ak li ko yàlla may ci xam-xam yaakaar naa dese na tawfiq ndax dafa dem ba effacé diine ci biir ay wéer am na yoo xam ne critiqué nañ ko ba def nañ ci moom ay xasida xam ne ay téeméeri téeméeri bayt mais déglu ko muy wax ci diine yi yi gën a rëy mooy diine ci al Muhammad ak diine Moussa ak diine Isa ak boog majus yi mu ne xafatil xadifatu wa nasara mahtadat wa majusu haarat wal yahudu mudallala xafatil xadifatu xafat maana tarxiis na diine yam ci al Muhammad tarxiis na abul ala ibnu arri mooy wax والنصارى ما اهتدت من كرتي جبوني ومجو سحارة مجو سيجلمن كل يهود مضبلة يهود دنيورين يمفهم من إسنان أهل الأرض ذو أقل بلا دين وآخر دين لا أقل له أدنى من نار لتجل في جس كأم خل وخم لا بد دين أنا من دخ كأم خل لولا مدين لولا كنان ما يكون أم دين تجامو يا الله دخل مرض إسنان أهل الأرض ذو أقل بلا borom xel bu àndul ak diine wa aaxaru dayyinun laa aqla la keneen ki ku bëri jaamu yàlla la ku bëri lu muy gëm la na xel mee manqué yemul foofu ñu ne ko xanaa abul alaayi dangaa weddi diine yi mu ne inna diyaanaati alqat baynana ihanan wa allamatna afaanina adawaati wa hal ubiha nisaau ruumi an urudin lil urbi illa bi ahkaami nubuwaati mu ne inna diyaanaati diine yi alqat baynana ihanan ñoo sànni noonoo ak kiñaanaati suñu diggante kenn ku nekk yaa ngi bañ sa morom l'islam moo ngi bañ yahud yahud moo ngi bañ l'islam yahud moo ngi bañ nasara nasara di bañ yahud bu allamat na afadina al adawaati mu ne diine yi leen xamal fànn non non mu ne waxal bu biir bi saa ruumeen maanaam jigéen a nekkoon ca ruum lu taxoon ñu daganal seen yaram di leen di njaaloo ñoom mu ne am urdu illa bi lil urbi illa bi ahkaami nubuwa mu ne atte nubuwa mooy yonent yi seen atte yi maanaam jigéen ñooñu defoon ruum ba nga xam ne arab yi dañ doon njaaloon ñoom te fekk ci turu diine la woon moo tax mu ne fi laazimiyati dajjatul ma bayna ahmada wal masih haza bi naaqusin yaduq wa za bi mizanatin yasir kullu yu'azzizu diinahu ya layta shi'riya masahih mu ne ca laazimiya ci biir Syrie ah mu ne laazimiya am na coow bu fa nekk diggante chrétien yi ak jullit yi mu ne kii ngi jóoloo leen fëgg mooy chrétien bi kii ngi microbe mu ne kullun yu azizu diinahu kenn ku nekk yaa ngi dégg sa diine lam ca teg nag mooy wax dem na yàlla te chiir yema sax yi waroon naa xam kan moo nekk ci lu ci ñoom ñaar jullit dana nekk jullit ba pare di am ñaari xel diggante diine chrétien ak diine jullit ban moo ci nekk dëkk xam nga jullit bi su nekkee ne moo ngi dem bay daal ñaari diine bi ci nekk dëkk mooy firi ne moom amul diine ah mooy wax ak yàlla mu ne ñu nee nañ mu ne yàlla kay comme que su leen reyee def nit di dexalaat su leen dexalee lam leen doon def lam leen war a def su leen dexalee na ko def léegi balaa leen rey rek mu ne an hayta an qatli nufusi ta'ammudan wa ba'asta anta li qabdiha malakayn wa za'amta anna laha ma'adan thaniyan ma kana aghnaha an al-ithnayn mu ne yàlla yaa tere rey bakkan ba pare nga yónni ñaari malaaka yaa tere rey bakkan ci tey nga yónni ñaari malaaka pour ñu rey nit ki nga wax ne nag su deewee dañ koy dexalaat mune ma maa kaana am ani gis na ni rey bi ak jaxalaat yi kay mënoon na sey ñak la nga koy def mom nit ki soko ko nga def ko léegi bi akam la pour wan la ne ku yàlla mayul tawfiq amoo tawfiq te borom xam-xam dem na bané ne mbindeef bi yëpp doomu njaaru la musma gis ku taxaw ni aduna bi ay doomu jaar la ku ku dul abul alaali maaru neena na ci yalla adam mo jël ñaari doomam mayante le mune lolu jaar jàll fa passé isa ma zakarna وتزويجه بنتيه لابنيه في الخنا علمنا بأن الخلق من نسل فاجر وأن جميع الخلق من أنس للزنا mu ne isa ma nasarna suñ xoolee isa ma sakar na aadama suñ fàttali ko aadama suñ bàyyi aadama fi aadawu ak jëf yu ñaaw lañ doon def law loolu wa taswijahu bintayhi libnayhi fil xanaa ndax xawaa def doon jur biir bi góor ak jigéen biir bi góor ak jigéen aadama jël góoru biir bi séere ko jigéen biir bi mu jël jigéen biir bi séere ko góor góor biir bi من مريو تزويده بنت لابنه في الخنا مرسي بخالد علم نعم خم بأن الخلق من نسل فاجر كن بدر ابن جري كوتي نور كاتشر وأن جميع الخلق بولم بدر من سون خنا نور جري كوتي تسامو جار خنا مولو وأيام فوق من يقول لك كم كان يوم على دمو جينة لم يدمو من خير لكن خير كذب القوم لا إمام سوى العقل مشيرا في سبهه والمسائل فإذا ما أطعته جلب الرحمة عند المسير والإرسال من إنما هذه المذاهب أسباب لجبتنا إلى الرؤساء من كذب القوم نيب فنن غاي يي وقت دين من فنن لا إمام نجيت أم في سوى العقل يدل خير مشير الخير موي جوج نيت كي في صبحه ومساء سبحان غون خير موي جبل النت فإذا ما أطعته سوى طب خير كباي دين جلب الرحمة خير دنا الاندل يرمان عند المسير سوى دخول إسحاق سوى يمن day taxaw innama hasil masaahib ne masaahib yi diine yi asbaabul li jalbi dunaa ilal masaahib sabab la rek alal ñi réer ñi ko ci nga xam ne borom xam-xam yi lii la ko qaadi Abu Jaafar Zuzani nee na abul alaa ma ardi kenn du mu daal woy ay woy yónnee ko ne kalbun awa bi ma arrati nu'maani lamma xalaa min riqati l imaani أنا عروة أن ما أنجبت إذ أخرجت منك ما عروة الأميان من كلب عوا خد وجوينا خد ويوخنا بما عروة النعمان كي بلاس بتد ما عروة ما عروة النعمان فلتر سيري لما خلا بويتي من ربة الإيمان موتي بومو ngëm yàlla ama awrata numaan mu ne yee yow dëkk bi tudd ma awrata numaan bi nga xam ne ci yow la abul alaay faaxee ko maa anjabti lan nga jur is axrajti bi ki ma awrata um yaa di dax génnee nga ci yow mu ànd ak gàcce ak mum yaa ngi gumba yi moo tax ñu bëri imam Qaxtaani tamit woy na ci nuuni yaa ngi gudd boo xam ne ñaari ñaari ñaari woy na ñaari xasida boo xam ne xasida bu nekk téeméeri bayt la ngir saaga abul alaayi maari mu ne taisa al ani abul alaayi fa innahu qad kaana majmuan lahu umyaanu wa laqad nazamtu qasidatayn bi hajwihi abyaatu kulli qasidatin mi'ataani mu ne taisa alakuna alamiyi kooku gumba gumba googu mooy abul ala il maari qad kaana majmuan lahu umyaan mooy la ñu gumba ñi rek la dajale ci wetam di leen indil ay xalaatam mu ne wala qad nasamtu qasidatayn li rabb naa ñaari qasida ci saaga abul ala il maari ngir fikraam ji mu yor boo xam ne day wetti diine abyaatu kulli qasidatin miataani mu ne qasida yooyu woy yi bépp woy ci qasida boobu nekk na ñaari téeméeri bayt lii li tax moo indi abul alaali ma arri ma jàdd ci moom jàdd gi mooy ngeen xam ne nekkete xam-xam du moom mooy maye tawfiq ndax iblis xuus na ci juróom-ñeent fukki géeju xam-xam ak juróom-ñeent waaye terewul mu bokk ca ña toskore walaw kaana al ilmu salah al fata la kaana iblisu nazir al junayd su nekkoon ne xam-xam rek dana tax nit baax konoon limaamul junayd nit mel ci baax konoon iblisa dana yegg ci limaamul junayd yi ci baax moo tax nag lii mbir mi mooy solution bi tey mooy ñu yegg ci Mawlana Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu ku yegg ci Baay yegg nga ci solution bi yegg nga ci li nga xam ne dafay musal ci xalaat yi nga xam ne day jàngal nit ki ñu ñoo jamono boo xam ne Oustaz Barham di def ku doon mel lool fii asrin waidin raidin asrin waidin jamono xam ne lu ne ngi ci def lay dig lu lu ne ci ndax faydu ci jàng ci la génn waaye raidin jamono boo xam ne tamit buy dënnu la na muy jigee noonu lay dënnoo maanaam haasa awaanul xayri minka fa innahu talaatama am waajul li charri mumahadi bàyyi nes booy ne ko ne jamono gi mooy jamono gi yiw ndax mooy jamono gi nga xam ne ci la faydu ci jaan génne waaye am waajul li na ay vague ñaawteef ci suñ jamono gi kéf nañu bëri si ñoom waaye soo bëggee diine bu wër kën soo bëggee euh, bëggee Eh, aqida bu wér kenn ñëwal ci Cheikh Ibrahim Niass radiyallahu anhu moo tax borom xam-xam ya nga xam ne ñoo rawoon ci jamono eh, bañ bëggee mucc ci seen i bakkan wa nafsi laysa yaalamu hiina tubla xaqiqata xubsiha illa al alimu bu wéykat bi koy mos Abdoulaye Jéeji ba yow Baay man sama bakkan laysa yaalamu hiina tubla xaqiqata xubsiha illa al sama bakkan daa sobe moo ma gañe def maa noot ak wilaaya gi mu ak nekk doom ku baax kim kim àndal waaye nee na bakkan ma ko jaaxal moo ngi jëm ci Cheikh Ibrahim radiyallahu wax wa nafsi laysa ya'lamu hiina tubla xaqiqata xubsiha illa alimu waaw ah, mu ne nag jébbal naa ko si yow ndax ku dugg ci maqaam Ibrahim dara du la jot du ñaaw eh, ñu def kon li nga xam ne moom mooy eh, lii eh, maanaam ci jaan yi waxoon ci téere bu tudd an nafahatul ilahiyya في رحلة التوريخية النفرات الإلهية في رحلة التوريخية كيف لا تخمنا ما لم تجاري تكرر موقع دفع مومي تي وقت بمو يدعو جيم تي باي من يدعو لين جيم تي يابدك في ولدون دعو جيم تي كمات تي جمام من أشكره إذ جعل الفرارة لكامل العصر له فرارة ثم وصلنا لمدينة العلا مدينة الفيد وصعدنا على أشكره ما نسان تيالا بام دفع daw jëm ci moom mooy daw jëm ci ki ci jamono moo tax ñu daw jëm ci Mawlana Cheikh Ibrahim radiyallahu mu ne ñu yegg ci madinatul ula madina kowe mu ne mooy madinatul faydi wa saaduna ala foofu la suñ texe nag daal di koy bañ yeggee ci Mawlana Cheikh Ibrahim eh, Baye waxtaan ci moom nekk lu métti lool ndax day mel ni ngay waxtaan ci koo xam ne xamoo surtout maa ñi nga xam ne bay bàyyi di génn àdduna suñ bët su at suy at su bëree ñaari at wala ñetti at lay toll kooku xamoo ko ci saa te baati ni kenn du ko xam li ngay wax rek mooy li nga dégg te ña fekkee woon wala nga liir ko ciy téere waaye Cheikh Ibrahima Niass maa ngi fàttaliku benn bés ibnu ndax mi moo ngi waxtaan ak ibnu Ataillahi Sekandari ibnu Ataillahi Sekandari wali yàlla la borom xam-xam la moom moo defar téere bu tudd al xikam ba daan na ko jàngale Madina xikam ibnu لو جاز أن يصلى بكتاب غير القرآن لصليت به كم ابن عطاء الله سودان من جودة تير بدون أخرى قرآن دنا جودة تير حكم ابن عطاء الله السكندر أي حكم كسرت نت بعد تر دخل من دخل جل قوم جب دخل كسي نت بعد ولا سي نت اللي بعد بدي أدعو أدم مشتات القول في بعض أحرفه دم جل بدي أقول خلقه ما لبس في أي كات يدات لول ابن عطاء الله جفتي حكم ابن نحوي nit yàlla dafa waxtaan ak Ibn Ata'illah ne ko damaa bëgg nga waxal ma sama xama ci yàlla Ibn Ata'illah noppi tontuwul ko Ibnu Nahbi ba mu demee tëdd nelaw génn ci yonent yàlla Muhammad wala yu ci kanam yonent yàlla Muhammad ne ana Ibn Ata'illah mu ne ko maa ngi nii mu ne jógal li nit ñi ci yàlla Ibn Ata'illah yi jóg di waxtaanal góoru yàlla ci biir gént gi nga xam ne moom la Ibnu Nahbi ne ko maa doon laaj sama xam mu ne ko waaw mu ne ko yàlla xamal na ma ko ibnu ataay daay ne ko maa xafiye anka akthar yëpp ya na ndax bii waaw la nëpp la nëpp ci sama maqaama moom moo ëpp la feeñ ci sama xam pour nga xam ne góor yàlla xam ko dafa jafe moo tax firasa limaamul junayd li fira firasatul mu'min limaamul junayd ku amoon firasa la yonent bi def ne njortu jullit moo ci dem ndax day dund leeru yàlla kuy dund leeru yàlla su yaakaaree dara rek laa muy part day am am na benn chrétien ci jamono limaam jullit chrétien bi def ne yonent bi def ne moytu leen njortu jullit ndax jullit man de xool ndax jullit ñi xool ci leeru yàlla danañ mën a xam ci sama mbir dara mu daal ji sol yére yu jullit mel jullit jullit daal jaxasoo ci mboolem jullit mi jullit ñi ci jamono koo xam ne limaamu jullit moo jiite woon ba limaamu jullit jiitee ba seen mu ñëw moom mi sol yére yi jullit yi di nuyu Imaamu Junayd di ne ko man de dama doon laajte benn hadis mooy ittaqu firaasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nuurillaahi ah, hadis boobu laa doon laaj Imaamu Junayd di xool ba si yàgg ne ko waaw demal ba nga dugg ci lislaam soo duggee ci lislaam soo ñëwee danaa la firi eh, hadis boobu ndekete yàlla def ko mu kaase ko war na ko ne waa ji ngir firaasam bu dégg moom Imaamu Junayd ndax day dund ci dana xam ne lii gars yi di wax itam firaasatul moom bi di wax la rek waaye du dégg bàyyi gis rek la mooma nag nga xam ne maqaamam kenn du ko xam kenn du xam Cheikh Ibrahim Niass dégg-déggal ndax wala yàlla yi ñoo ngi ci ron keppaaru yàlla awliyaa yi taxta finaa yi laa yaarifuhum ahadun xayri waaye nag ndax yàlla day beral góoru yàlla yi ay loxo ndax ñoom yemuñu ay maqaama yonent yi yemuñu maqaama ndax ci yonent yi am nañu yàlla tànn sax ne ñii maa leen xamal allahu allama sabatan fi dikrihi woykat bee ko woy allahu allama sabatan fi dikrihi faaqu bihi kulla alwara wa tahammadu hum adamu daawudu isa yusufun xadirun suleymanu walihim ahmadu salla alilahu alayhi summa alayhimu ma dama fi lkawnayni abdun yahmilu allahu allama yàlla xamal na sabatan juróom ñaari nit fi dikrihi yàlla xamal na dem ci yàlla aadama xamal na daawuda xamal na isa xamal na yusufa xamal na xadir xamal na suleyman ñii yàlla ma wax ci alquran maa leen xamal gis ngeen aadama ko xamal wàllama aadama asmaa kullaha jàng nañ ngi fi woon ay junni junni at di jaamu di sellal waaye yàlla xamal leen tur yi ci yàlla aadama ñëw yàlla yegg war ko xam tur yi ci yàlla aadama moom ba ko yàlla xamalee def am résultat résultat bi mooy lu toll ni malaaka yi dañoo ñëw sujudal leen ci yàlla yàlla ne malaaka aadama yàlla xamal toujours résultat bi day lan la ñuy jëlee foofu aadama yàlla xamal ko may yi di ko sujudal waaye nag ginnaaw gi yéen ci yàlla Muhammad daal di ko ëpp ma xam moom mi jur mbindeef bi moom mi malaaka yi sujudal moom mi yàlla xamal waaye nag loolu mooy firi nekkee allah faidati faidata fi asbaqiyati ak nekkee maa la fi jiitu firiwul ne maa la uma xaama ci yàlla wali yàlla yi yu bëri leen jiitoon bàyyi bàyyi dafa mujj waaye dafa ne maa maa dara ni ca kaas la bas anni ataytu muqaddaman fa sabqu yurafu axiran min maali wala in xada rabbul balaagati balta an fala ruba kanzin fi asasi jidaari bàyyi ne maa dara ni man yàqalu ma dara wàññi ma dara أني أتيت مؤخرا لما نيو مجتي ولي يالي ها آه، ما درني أني أتيت ما درني إلا أجي متقدما ما درواني وسمني وجيت فسبق يورف آخر من ماي نخبار من يسوف لي جيداو كي جيت فوق نكو كو جيت وايه كي جيت نيو كوي خامي نسوين دمي با آخر من ماي درني كرسي با فوق نيو خامي كان مو جيت كون نكت يمتيا العالم جيت لوايه يمتيا العيسى yonent yàlla ibrahima moo ko ëpp maxaama yonent yàlla moom saa sallam moo ko ëpp maxaama bàyyi nes nag de laanu wali yi jiitu nañ ko waaye bépp wali bu yàlla sàkk ku dul sahaaba yi ak cheikh na ahmada tijaani xamal ne bàyyi nes nag daal moo la raw ci yàlla te moom daa ñëw mujj moo tax bis bi di ko wëy ci lamme ne maa darani anni ataytu muaxaran fa sabbiya maalumun la daa nazari qalb maa darani yàqal ma dara anni ataytu muaxaran ma ñëw mujj yàqal ma dara ndax fa sabbiya من سمعه معروف لدى نذير القلب سو خولي سو امي خولي الخول دنگا فك من دم عرب ده مو في نكرا يونتي على محمد مو باي اي جني جني ادبو بيالا ساكر من بدل من احببته حتى اراني يكونته من دم عبق يونتي وخول سمع بوك جست فك من ما جم يونتي على محمد ربي يلا بيخذ مكانا ولا ربك واخبرين الول وان لكو يالا ما يموري موتا مو كي وخي نون ده ليلي ده كسوالي وخامنه dafay ragal a wax am na ci wëli yàlla yi waaye bàyyi bokkul ci wëli yàlla yi nga xam ne dañuy ragal a wax seen mayu yàlla ndax wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis si sa xéewalu borom sante ci sa borom ndax inna allaha yuhibbu an yara fara ni'matihi ala abdihi isa anamo yonent bi leen jaam ji yàlla bëgg na gis jeexitalu xéewal bi su nekkee ne jaam ji yàlla xéewal la xadir benn waay la yàlla xamal la ko ci alquran parce que wa allamnahu min ladunna ilman wax jooju xaddira ko moom ci alxuraan ci suratul kaafi ba yonent yàlla Moussa toogee benn bés benn waaye naan ko kan moo raw tey ci yàlla ci kaw suuf Moussa ne ko boobu Moussa yëgul ne lekkete am na ci góor yàlla yi ñoo xam ne dañoo gis leen yombul am na ci góor yàlla yoo xam ne dañoo nëbb xam leen yombul te waliyu yàlla koo xam ne mbindeef bi def koo réere la plupart moo ëpp maqaam ci waliyu koo xam ne mbindeef bi dañ def koo xam moo tax am na waliyu yàlla yoo ne mbindeef mi xam ne leen yàlla xam ne leen xam nañ seen bopp ñoom ñoo gën a suufi suufi maqaam am ñoo xam ne eh, yàlla xam na leen xam nañ seen bopp waaye mbindeef mi xamu leen kooku moo ci tegu am xam ne yàlla xam na ko waaye mbindeef mi xamu ko moom sax ci boppam xamul boppam kooku moo gën a koy maqaam ndax maqaam gi daa rëy ba moom ci boppam maqaam gi def ko faral kooku mooy ku mel ni sëñ Ibrahima Ñas ndax wax ak Baye di ko wax bal minhu hatta anil maqaamist ci taram eh, eh, yow maqaama gi la yàlla may sax def laa nëbb mbindeef mi xam ni ko laa yorofu fi dunya wala xam ci adduna waaye kenn mën koo xam ci àllaaxir moo tax yàlla xamal résultat xamal bi ko yàlla xamal ci alxuraan mooy mu am taalibe bu toll ni yem ci yàlla Moussa yem ci yàlla Moussa borom charia la yàlla may na ko téere boo xam ne junniy saar la mooy tawraat téere bi daa rëy ba kenn mokkalu ko lu dul moom ak Haaruna ak Yuusha ibn Nun ak Uzayr ibn Sharia Uzayr ibn Sharia yonent la Yuusha ibn Nun xalifa la ci xulafaaw Moussa alayhi salaam Haaruna yonent la comme yonent Yàlla Moussa nekkee yonent ñii ñoo mokkal téere maanaam euh, tawraat ndax ni tawraat rëy xoolal nga bu toll ni tawraat ak ni mu rëyee allah. nga am taalibi bu toll ni Yuusa ak bu toll ni Haaruna te Haaruna nekk yonent nga gis mbir loo gis ci yonent yi toujours soo xoolee ci bàyyi dëgg ci fekk na magam bu tudd Cheikh moo ko magoon lu bëri nekk bëri yàlla di bokk benn ndey ak bàyyi kooku daal di suufil ronu bàyyi nangul bàyyi comme ni Haaruna nanguloon bàyyi te Haaruna yonent na Muusa yonent la te Haaruna moo magoon Muusa su la neexee nga sax at yi nga xam ne moom la Haaruna magee Moussa ñoo ngi jege at yooyu nga xam ne moom la Cheikh Mahmoud Niass magee wa Cheikh Ibrahim Niass waaye mu nangul ko benn bés bàyyi jël na këram terrain ko mu ñëw ne bàyyi terrain bi nga may jiw sama terrain la maa moom bàyyi ne damaa xam ne sa terrain la moo tax ma ñeme ko may nga gis ndekete yem ci yàlla Moussa ak maxaamam bu kawe boobu yàlla nga koy wan ne déet man man nanguuma yàlla bëggul man da góor yàlla nee nañ soo bëggee yegg yàlla il ndax yonent yàlla Moussa sax yàllaa ngi wax ak moom aayat na billaay ñoo ngi koy nettali ne ay ni anturu ilayka ba mu waxee wan ma a gis la yàlla ne ko lan taraani ñu firee ko ne li annaka iza kunta anta fa antiyatuka hijabun an ananiyati fa iza zalat antiyatuka wa talashat antiyatuka wan mahaqat antiyatuka fa baqiyat ananiyati fa ayna anta hatta taraani Moussa nga fa di wax man fekk yaa fa di wax man sa man man ki kiiraay la pour saa bu effacé woo mu des sama man-man ma des man kese ba léegi nan nga may gisee kon kenn mënu maa gis man gis ci ne balaa ngaa da ngay nekkaat bëtu wa bëtu gis bu gis man faa kon araf naaka ay suma jahil naaka hakaza jahil naaka dem ba xam ne kenn mënu laa xam boobu lañ la xam waaye bay yaakaar ne nañ la xam boobu lañ la réeré nit ki ci biir gis yàlla dana dem ba xam ne kenn mënu koo gis loolooy gis gi ah laa yaarifullah illa llaha fattaidu wa diinu diinaani imaanin wa ishraak wa lil uquli hududu laa tujaawisuha wal ajzu an daraki idraaki idraak ne ne Seydina Abubakar ma woy mu ne laa yaarifullah gis naa ne kenn mënul xam yàlla illa llaha lu yàlla ndax sooy xam yàlla da ngay xalaase wu ba yàlla des di xam boppam bu boobaa nag nekkite yow nekkoo fa ka nekk mooy ka fa nekkoon mooy yàlla avant ngaa am te soo jeexee mooy dellu di nekkaat. ka nekkoon démb amoo te soo jeexee mooy des di amaat kon ba ngay am amoo soo seetee da ngay fekk am amoo moo fa nekk allahu kaana wa lam takun wa yakun wala takunu xayya yàlla nekkoon na nekkoo da nga ñàkk nekk mu continuer di nekk ba ngay nekk nekkoo yàllaa nekk moo tax ba fay dubbi daanu fële sa boggee am mag ñi nga xam ne dañoo jóg ne dañ koy fay pour xeex a xale yi benn sëriñ bu mag ñëw ko bëgg a fay fayda bi dajale ñëpp ca jàkka am na benn mag ju jóg doon jottali sëriñ bi ndekete doomam taalib bàyyi la te dafa lakk ci leeru maarif bi nekk ba jeex tàkk gisatu lu dul bàyyi nit ki am na nooy déggoo dootoo yëgati lu dul yàlla lu dul yàlla dootu la safati maanaam su nekkee ne mbëggeelu Cheikh Ibrahim lakk na sa xol lakk goo xam ne moom lay misir di wax tallaahi ma hubbul xalili bi ëndati wala safratin kalla wala faydu abrati walakinahu wallahi fi qalbi shiblatun tubajjijuha kashfahu fi kulli lahzati shibla boobu xalu safara boobu xalu safara sa dënn dootoo yëgati kenn ku mu mën a doon doon ci safara ko mooy sëriñ bi ne ngëneelu tarixa mooy soo jàppee tarixa tijaan yi da ngay dugg ajjana kenn la xisaab ñu ne waaw ah, macha allah ngëneel yi de moom ngëneel raw mu ne léegi nag ku ñëw ginnaaw ngëneel gi nga da nga indi leneen kooku est-ce que du caaxaan rek ñu ne caaxaan rek ak ñàkk teggin ak bëgg fi indi lu amul sëriñ wax mag boobu doon jottali sëriñ bi doomam a ngi ci mbooloo bi nee na balaa Thierno Abdoulaye Dia di war a tontu sëriñ bi mu daa bëgg wax ak baayam d'abord li tax ma indi ko nangu ndax jéppi na ko ba newoon na ko du ko mu ko nee papa mu gestu ko wuyu mu ne ko yàlla nekkoon na sama yàlla balaa ngaa nekk sama papa te danga ñàkk a nekk sama papa yàlla continue nekk sama yàlla loolu laa la ko doon wax continue yàlla nekkoon na sama yàlla te boobu nekkagoo sama papa te yàlla dana continue di nekk sama yàlla boobu nekkagoo sama papa ndax lépp a jeex kullu shay'in haalikun illaa wajhahu yàllaa fi njëkk yàllaa fi mujj loolu laa la ko doon wax continue mais Cheikh Abdoulaye nag moom sëriñ suñ suñ sëriñ moom nee na sëriñ bu mag bi la soxla woon nee na ba mu toogee na mu sëriñ bi gàtt bu mu wax rek moom moo ngi dox maanaam di raam avancé pour jàkkaarloog sëriñ bi pour seen ñaari oom yi sesandoo pour ñu waxante lan mooy dëgg ndax nit ki su nekkee ne bàyyi ngay dund te bàyyi te wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in tantahu rusdu fi ajamiha tajib Imaam Busayri nee na képp koo xam te ndimbal ci yoon ci yàlla a la soo dajee gaynde sax day wegu moo tax taalee bàyyi lu tuuti tuuti su gëmee li nekk bëgg bàyyi ñes man na dajee borom xam-xam bu rëy boo xam ne jàng na téere ñëpp waaye mu gàlgal ko fu sew ndax gis naa benn waaye bu tarbiyu ndeysaan day tuux sax mu dajeeg nijaayam boo xam ne moom ak yaayam ñoo bokk ndey ak baay nijaay di nekk borom xam-xam di firi alxuraan mais jarbaatam bi daal yow fekk nijaay bi di wax maa yakunu min najwa salaasa illaa huwa maanaam ñett ñoo fekk illaa huwa juróomeel foo fekk juróom yàlla ren juróom benneel mu ne daal fu ne rek yàllaa nga fa place bu nekk yàllaa nga fa mu ne ba mu yor loolu génne almet bi ci poos bi rek daal di ne ko nijaay mu ne ne fii yàllaa ngi mu ne dangaa bëgg mu làkk ne fii yàllaa ngi maanaam def ko bëgg su nekkee ne place bu su ma nekkoon day làkk xoolal la yàlla nekkee ci mbindee moo tax bu ndaw kenn mënul fay bàyyi des yàlla ñu moo naa ne lépp lu waay jël pour fayee ko bàyyi des fekk bàyyee ko joxoon ndax ku lay jox yàlla jox na la ku manqué yàlla manqué nga lépp ku am yàlla am nga lépp mu ne ko nijaay est-ce que yàllaa ngi mu ne mu làkk yàlla ni nekkee ci ka nu gi Cheikh Ibrahima Niass rek moo la mën a nettali yàlla yegg ci seen ne yàlla rek moo la mën a yeggal foofu ndax nusuus yi nusuus yi soo ko toppee ci zahir bi dëgg gën waa ji newoon na laa yaarifu eh, laa yaarifu llah illa llah fattay aw wakit na sa ji kenn du xam yàlla ku dul yàlla fattay du def ne ndànk wa diinu diinaani imaanan wa israr ndax diine gi ñaari diine la diine gëm ak diine bokkaale moytu balaa ngaa bokkaale fekk yaa ngi yaakaar ne yaa ngi ci wéetal bokkaale daa sew bañ ñu jaaxale mooy bi yàlla waxee wa maa yu'minu aksaruhum billahi illa hum mushrikun ñu bëri si ñoom danañ gëm waaye ñoo ngi bokkaale bàyyi rek moo génnee mbindeef bi ci bokkaale gu sell gu set ndax fekk yaa ngi wax man yaa ngi bokkaale ak yàlla iza qulta ma asnabtu qaalat mujibatan wujuduka dhanbun laa yuqaasu bihi dhanbun aarif bi laaj ne saa boo fëggee sa dënn ne musuma am bàkkaar yooyu yàlla di tontu ne wujudu kazan la nga fa nekk bàkkaar soo fa jógewul def fa ka fa nekkoon avant nga faa nekk xamal ne ba léegi yaa ngi bokkaal xaaral bu ci ba tey wujudu kazan laa yupaasu bi xam nga olof dañuy def ne balaa nga ne naam ne fa moo tax soo déggee ne aarif bi kenn ko bindal bàkkaar mooy balaa nga ne naam ne fa balaa nga ne naam ne fa nga nekk fa. maanaam balaa laa bindal bàkkaar xanaa daa nga nekk fa ndax bàkkaar li koy sabab xam nañ ko mooy bàkkaar ak cheytaan iblis wa dunia wa nafsi wa hawa kayfal xalaas wa kulluhum aaday iblis ak adduna ak ak bàkkaar gis nga cheytaan yonent ne ne yejri fi ibni aadama ma jëra dem fépp mi ci doomu aadama cheytaan yi ngi dox foofu ci doomu aadama loolu la yonent bi wax mu ne fa dayiqu majaanihu bi juu fexe leen xatal doxinu cheytaan seen yaram ci xiif ndekete koor def woor dafa baax Aïcha loolu yonent bi yow yaa Aïcha ak cheytaan wéetri fi mu ni aadama ma def dem fa dayiqu majaari'ahu bil jur fépp fu cheytaan fépp fuy deret di dox ci doomu aadama cheytaane man dafaa dox ci nit léegi nag dama lay laaj deret ni muy doxee ci yow xam nga mënoo cee mucc cheytaane moo ngi doxee noonu ci yow léegi daa mel ni yow sa benn yére bi nga soxla yére baa ngi takk mango wala moo ngi takk takk yaa ngi ceeb wala takk yaa ngi léegi soob bi wala fonde yére bu takk soo ko xam nga ba ñu dañuy ñëw si mooy seytaane gi dox ci sa deret ndax am na salte bu nekk ci yow mooy yaa ngi wax man yaa fa nekk comme que yaa nga ne yaa ngi am seytaane ñëw ne loolu bàkkaar la loolu salte la naa ñëw ziyaare ko comme ni wet bi di ñëwee ci sa yére bi nga xam ne dañ kaa mu takk léegi su nekkee so dàqee wen bi day joor mu jëmee mu ñëwee càmmoñ soo dàqee wen bi càmmoñ mu ñëwee day joor soo ko dàqee kanam mu ñëwee ginnaaw soo ko dàqee mu ñëwee ci wen yooyu ñooy def su mbir yére yi daa def lay këfër mooy soo bëggee mucc ci seytaane ba seytaane dootu la mën a dara mooy làqu ci yàlla effacé am-am ji nga jóge fa nekk na nga nekkee woon balaa ngaa nekk firiwul dara lu ne dangay effacé ci yàlla ba yàlla des di nekk na mu nekkee woon démb balaa dara ndax kullu shay'in haalikun ku ko firi rek xam yàlla ku ko firi yegg yàlla ku ko firi am faraawu ci yàlla kon dindil sa am-am nit ki fekk dindi woo sa am na ci hadis ñu waaye li wóor mooy waxu Seydina Ali la mu ne ashirku shirkaani jaliyun wa xafiyun fal jaliyu jaliyun wal xafiyu axfaa min dadi bi namlati samraayi ala saxrati sammaani fi leylati zalma bokkaale ñaari façon bokkaale bu nëbb gi ak bu feeñ mu ne bu feeñ gi moom bu feeñ la laa tasjudu li shamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladi xalaqahunna in kuntum iyyahu taabudun bul jaamu garab bul jaamu jant bul jaamu biddiw bul jaamu saxaar loolu yépp ay bokkaal la yoo xam ne i feeñ la mais bu nëbb gi mu ne axfaa moo gën a nëbb min dabi bi namlati samraa yi ala saxrati sammaa fi leelati zarra tànk xorondom bu xonq bu jaar ci doj bu wow ci kutti gu tànk xorondom su jaaroon ci suuf sax mënoo gis tànk yi mais mu jaar ci doj bu wow pour nga gis tànk yi niñ jaaree ci doj bu wow mu ne bokkaale bu nëbb gi moo ko gën a nëbb mooy firi ne yow nit dindi fa sa bopp pour nga mën a jëriñu ci yàlla waaye fekk yaa gis sa bopp doo mën a jëriñu ci yàlla moo tax li Seydina Abubakar laa yaarifullaah illa man def ne fattaidu kenn du xam yàlla ku dul yàlla fattaidu ne ceeleen def ne ndànk Cheikh ne Cheikh euh, benn histoire diggante benn xaritam boo xam ne ah, xam la woon xamul woon yàlla mais daa jàngoon téere yi muy liir téere yi benn bés ba gis xadis laa yaarifullaah illa kenn du xam yàlla ku dul yàlla mu ne ba mu liiree loolu mu kontaan ndax nee na am na fu muy gàmbalee Cheikh Abdoulaye Dia ndax Cheikh Abdoulaye fu mu toll di leen wax xam yàlla xam mu yónni soxnaam si demal wool ma Abdoulaye si eh, Abdoulaye daal di ñëw waaye ngir ni kontaanee ci hadis ak xam ne fi mu ne nii daanee na si Abdoulaye daf ko di jàngal hadis baa ngi doon jàng si Abdoulaye ne sa téere ko doon liir kay jàngal ma dégg mu ne daal eh, laa yaa def laa dingal kenn du xam yàlla ku dul yàlla te yéen ngeen toll yéen a ngi wax xam yàlla xam yàlla xam xam yàlla si Abdoulaye ne ko waaw léegi nag dafa am la bëgg a laaj waaye ci yàlla te jullit yonent bi xamoon na yàlla mu ne ko waaw yonent bi xamoon na yàlla mu ne ko yàlla la mu ne déedéet du yàlla ah. na yàlla waa ji ne waaw xamoon na Cheikh Tidiane yàlla la waa ji ne ko déedéet mu ne ko kon nag fexeel vérifier sa at bi man bi baax di naa la yaqum incha allah naa ci sama géej doo mën man lam yaqif bi baax bàyyi na si gàttal wax ji tënk ko ci fasaa bàyyi moo dara ko wax képp kuy wax ci arab bàyyi na madadu jasadi laa yafhamuhu illa jasadu madadi madadu jasadi man sama ndollalu ko yaram lépp loo xam ne yàbbi naa ko ci ndollal dédee ko ci péye bi yàlla yàlla jaarale ko sama xol laa yafhamuhu illa jasadu madadi kenn ko dégg lu dul sama yaramu ndollal maanaam sama ndollalu ko yaram kenn ko dégg lu dul sama yaramu ndollal su yàbbee xam-xam maarifa billah kenn du ko dégg ñu koo xam ne ci man la génnee ma tarbi ko yar ko yéegal ko ci maqaama yi ba yegg ci fa ñoom cheikhaan yi yeggoon ah ba muy wax raat zaati sifaati ayna zaati kama zaati raat zaati sifaati fala zaati mata kaanat si wasmi wa lasmi xayru zaati maysuyaati تثبت ذات ذاتي صورة اسمي وتثبت صورة اسمي ذات ذاتي bisaati musbatun bal musbatun bal anal isbaatu bal anal isbaati loolu ku ñëwul ci Baye Niass mënoo xam loolu ku yeggul ci Baye mën a yegg loolu moo tax Baye ne Thierno Hassane Deme dootoo amati problème ci waxu wële yàlla ndax fa fañ yem yow foofu nga tàmbali kon Baye moo gën a yéeme ci wëlu yàlla yi depuis ba yàlla sàkki àdduna ba tey gisuñu wëlu bu taxaw ci kaw suuf yàgg ci xam yàlla li Baye Niass yàlla moom sant na si yàlla sax ne nëbbu ko lépp lay wax yaa ngi dégg mu ne. في معرفه بالله موم وقد فقت في الارشاد من كان يعرف كيف تقول الخم يا من بايس رونا في الخم يا سقيت جميع العارفين وما دروا باني انا ساقي بكاسي وحالتي سقيت من بايس ما عند جميع العارفين وهي تشب وما دروا خمولي باني انا ساقي مال النمر يبقى لي مال النمر فسك سما مقام لكم بكاسي وحالتي سما ما شاء الله سانغلا ها ak kaas bi lépp man la képp ku am fii benn guux guux yooyu yëpp xam-xam na solo waaye nag la gën am solo mooy bëggee bi moo tax misiri yi kenn raw koo ci maarifa bi daal misiri yi waaye déglu wax si Abdoulaye Jéeji ba mu de bi inii min mahabbatika qadra rasi ibratin utika maarifati sa mbëggeel gi nga bëgg bàyyi laa bëgg nga jaay ma ci lu toll ni bopp puso ma jox la sama maarifa billahi bi yëpp yow Abdoulaye Jéeji kii war na ko ne parce que maarifa sax ci ma xam ba lay juddoo ndax mbir mi soo ko bëggul doo mën a xuus ci mbir mi nag na war a xuusee moo tax foo toll rek xamal ne wasamma axaru man a nga fa foo toll fa yooyu yàlla bi daal di dañ ko lebes ci biir géeju munduk xam yàlla man ahsana lahu wasfan fii tijaaratihi zakiran ne képp ku féey féey bu rafet dëgg na ceeg loolu kon xam yàlla am na solo waaye bëggee dëkk ëpp solo maa ngi nettali waa seetu keroog maa ngi ci nuyuwaale waa seetu ñoom Birane ñoom Samba Birane Ndaw Samba Congaan Baye Congaan maa ngi leen di nuyu maa ngi nettali rabbaani ma nga xam ne dafa woowoon Bichri ne ko damay ñaan benn affaire mooy su dee fépp fu dee ci àdduna naa bàyyi jullee waaw na ma bàyyi jullee misiri daal di dem wax ko bàyyi def ko yëpp di bàyyi ndax boobu yàlla léeg-léeg euh, toll na nga bàyyi foo xam ne dañuy rus jàkkaarloog moom te gis nga nit maqaamam dina kowe ci yàlla pour nga jàkkaarloog moom sax di wax soxlay def day tëj ndax gis nañ Cheikh Abdoulaye Sakho ki tar bi Cheikh Abdoulaye Dia moom naka jekk mënul woon xool sax bàyyi gis radiyallaahu ah benn bi sax bàyyi na te yëgu dafa gerte rek gis bàyyi rek mu tiit ñam àndal mu ne ba mu ni ba mu ni mu ni mu ne woy moo ngi nii woy moo ngi nii xoolal bëgg bàyyi ñes ragal ko mbëggeel bu jaxasoo ko ragal maanaam li muy firi mooy da ngaa xam maqaama waa ji ne soo ko xamul woon doo ko ragal tuuba li man ahabahu wa xaafu bisiri nee ne wajtamaa fi mazhari lxilaafa tuuba li man ahabahu wa xaafu maqaama yëpp ci yàlla muhammad ak Cheikh Tidiane yàlla la jël dëxëñ leen ci bàyyi ñes na tuuba ajana yàlla li man ahabahu ku ko bëgg waaye wa xaafahu ragal soo ko xamee rek ragal waa am na ñoo xam ne dañ daan ñëw toog ci lalu bàyyi ay chérif lañ waaye nga tarbiya ba xam kuy bàyyi waxuma la toog ci lalu waaye xib bi xool bàyyi rek ma ko maa dajeeg moom dara nee na ñoom ay woon ay mag fukkeet ak juróom jëm fukkeet ak juróom-ñett mu dégg gars yi di wax kenn mënu ko kenn mënu ko xool kenn mënu xib bi sa ñaari ko xool ndax xëy ba gi am ak wekk ndax leer gi nekk ci dënd gi ak maarif bi laay bi xam-xam bi su koy def nee moo dem ba fee ci kanam yi wa sadru bi ka bi nuuril xaqi munshari'un hatta bada nuuruhu ala muhayyak su su koy def nee yow bàyyi sa dënn gi daal ubbeeku ci leeru yàlla gi ba leer gi daal di fay sa kanam dañ koy gis bàyyi yéen nga yaakaar ne gaynde nga jàkkaarloo mu dégg ñu ne bàyyi kenn mënu ko xool mu ne caaxaan rek bàyyi kenn mënu ko xool mu ne benn mu ñëw Dakar mu ne mu ne mu ñëw moom tamit bi ci cat la waaje wax il faut mu xelloo dana daagu ba ci karabu baay toog kulli ko ko ci yàlla xam ne moo ñu ko dettali dara màgget la nee na mu góorgóorlu rek di xuus rek ak toog jama baay des waaye nee na xippee bët yi xool baay ne na fa la sëgg si kiiwul ba mbooloo mi tas ndax ndekete la waaje doon wax dëgg la yàlla xam lan la gis te wala yàlla sooy ñëw dañu xam lay ñëwaale ndax séeréer ba waxoon na rek dégg naa ñu ne kenn mënu koo joxoon benn baaraam fukki baaraam nga koy joxoñee wala man de su ma gisee ñay baaraamu bi laa koy joxoñee mooy baaraamu ndaw waaye nee na yàlla def benn bés bu muy dox rek nga gis ñay waxuma la baaraam bi la wax ñay moo léegi ko bopp bi bopp leen nit waaye baay moom mooy ñayu ñay moo tax waa ji nee siggi wul lu dul mbooloo bi tas na bu yàgg mu doog a siggi ndax lam daj moom bugul daje dajewaat ak ñi xam ñi xam même yonent bi saa sallam soo jàngee ci histoire ci siira yonent bi sahaaba yi ñetti li melo yonent bi daan nañ yonent bi meloon mag ñi ci Abubakar ñoom Omar ñoom Usmaan ñoom Ali man bokkuñu ci ñi mën a ñetti li melo yonent bi nga ci ñu ndaw ñi bi meloon waaye bàyyi ku ko xam ragal bàyyi ku ko xam ragal musul wane boppam nag danaa wax rek xéewal boo xam ne moom wax na ne moom mooy buntu yonent soo ko bëggee ñëwal ci man man maay buntu bi loolu moo tax ci xam yàlla loolu ci buntu bi soo bëggee yegg ci buntu bi tamit xeet la ci yërmaande ndax xam ne ni ku yegg ci moom yegg ci yàlla dafa mel ni nodd bi laay dégg noonu te sama sëriñ Cheikh Mouhamadul Kabir nga xam moom guddi gi daanaka waxagul dama di jéggalu rek vraiment bëggoon naa waxtaan bi yaatu parce que gis ngeen rek nii nga xam ne moom moom guddi gi moo ngi fi Cheikh Baye Mar mi nga xam ne ngeen ñaa ci yàlla péeyu Cheikh Ibrahim ngan mag yi ko doyloo ci wàllu yàlla ak Hadj Abdoulaye Niass xalifa bi def ko doon waxtaan loolu ci biir mbooloo te xam nga Hadj Abdoulaye Niass ku ko gën a ñor ku ko gën a xam nit ku ko gën a am xam-xam ak ku gën a xam fan la ñuy waxee ak kuy war a wax Hadj Abdoulaye Niass kenn gënu koo xam loolu def ko doon waxtaan loolu gis naa tamit yaa ngi Papa Cheikh xalifa bi di ko yónni mu koy muy def ay waxtaan fu sori ay conférence naka jeeg Serigne Mahi yi mi nga xam ne moom moom guddi gi gis nañ mu yónni ko lu dul benn di làkk arab ba balaa jël ci bëgg xam nga kuy làkk arab ci kanam kër oustaz Ibrahima mu jël ba is oustaz di kontaan xamal ne kooku xam na arab te dégg na arab ndax arab suñu koy ma yàlla ma koy dégg lépp musa bu ma dégg mu ba jur loolu tawfiq yàlla lii moom dimbalu yàlla la koo xam ne yàlla yàlla moo ko may te bokk ko kenn moo tax oustaz ba bàyyi naa vraiment bëgg nañ sànni ci ay kàddu pour ñu comme nañ nañ njëriñoo woon daaw waaye pour may dugal ni jaru ko damay jox zikar xaw ma ndax zikar kat yi dañuy ñemt wala bàyyi alaaj yi cof tuuti ñu jox sëy ji Mouhamadul Kabir su paree ñu jox bàyyi ma jox Kabir waaw ñu ne ñu jox Thierno Kabir Baye Diouf nga jéggal ma nag dafa mel ni maa ngi yor micro bi te yaa ko waroon yor kon xam naa temps bi rek moo ñu njëtt moo tax bismillah Thierno Kabir tafadal برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نيوينان